damay jaajëfal ñi nga xamni ne ñoo fi dajje tay ci ndajje bi nga xamni fi lañ ko defé ci ministère muy ndajje bo xamné dañuy magal juroom benn fukki at nga xamné lu ñu woowee loi sur le domaine national daf ko am lu mu am solo moy ki ñun ñëpp xam nañ ni jamono ji dañoo nekk di liggéey ci ministère agriculture souveraineté alimentaire ak élevage lu ñuy woowee souveraineté alimentaire du Sénégal waye kenn mënu wax souveraineté alimentaire te waxo foncier lu tax té kenn mënul bay fudul ci suuf kenn mënul sàmm fu dul ci suuf te ñun ñaar yooyu bokk na ci ñu soxal te bu ñu ñëwee ba toog tamit président la république daa xam daa am loo xam ne daf ñu ko sas lu mu ñu sas bokk na ci mu ne nañu liggéey si li ñu woowee si loi d' orientation agro sylvo ñu nekk di ci def liggéey bu am solo leneen li tamit mooy ñu mu ne ñu nañu liggéey lu jëm ci code pastoral ñu nekk ci liggéey bu ci def liggéey am solo waaye ñaari document yooyu euh, mënoo ko jëfandikoo wala def ci li nga bëgg a def fekk tamit liggéeyoo ci ñu wax si loi sur le domaine national moo tax tey ñu am mbégte loolu dajale fii ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañu ñu yàgg waxtaanee lu jëm ci loi sur le domaine national ne leen nañu waxtaan ñu xool waxtaan ji nag am solo loolu ci ñun ndaxte dañoo bëgg Sénégal mu dem ci lu ñuy wax réforme foncière réforme foncière nag lu ñu ci bëgg mooy am ci xalaatu ñëpp nga xam ne bu ëllëgee bu ñu amee document ñëpp ciy juboo ñu léegi lu jëm ci suufu Sénégal nii lañ koy yare ndaxte jamono ji tey luy jaf yenn bokk na si jafe-jafe suuf Sénégal pour nga xam ministère bu ko tiim dëggantaan day metti ndaxte ministère agriculture élevage am na ci wàll ministère des mines am na ci wàll ministère euh, économie finance et am na ci wàll ministère collectivité territoriale am na ci wàll ndaxte commune yi nga xam ne ñoo tiim lépp luy les terres du domaine national lool nag bu ñu ko buggee yooyu yëpp nag difficulté yooyu yëpp nag bu ñu ko buggee dindi du ñu yeew rek ne dindi nañ ko foog ñu bàyyi acteur yi toog daje waxtaan nag ñu xool waxtaan tey jii nag dafa am solo ndaxte dañoo bëgg

waaye ñu xoolaat lan lañ ci war a saytu ak lan ci war def ba nga xam ne dina méngoog jamono méngoog bëgg-bëgg askan wi ak gis-gisu askan wi ngir lu ñu bëgg ci souveraineté alimentaire Sénégal ak orientation politique yi nga xam ne président de la République daf ko définir ñu mun ko am fekk mu méngoog li nga xam ne askan wi tamit loolu dëgg-dëgg lay xaar ci gouvernement bi dëgg-dëgg loolu lay xaar ci décideur politique loolu mooy solo ndaje tey bi am nañu yàqin ne nag lu fiy génn ci ndaje bi incha allah luy am solo lay doon ndaxte ñu fi daje ñëpp ay borom xam-xam lañ te yàgg nañ ci waxtaan te xam nañ xamee nañ leen tamit bëgg lépp loo xam ne day defar foncier Sénégal